temps avec ceci ñi ngi en direct ci téléphone bi yaag ndaw la ñu toogal ca Louga Abraham Poul Pouy Abraham ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay kon verdict bi loolu la ñaari at yoo xamante ne day ànd ak ceci maanaam duñ ko tëdd. waaw El joog Diop Diène ni nga ko waxee noonu la tribunal daf leen daan ñaari asukaso ak si maanaam dañ ko tëdd jamono ji nag ñoom dañuy ñibbi fi nga xam ne la ñu dëkk waaye li ñu mënti jàpp daal mooy eh, tey moom dispositif bu am solo jëm ci wàllu police eh, wàcc si woon na fi ba nga xam ne daf cadre tribunal bi ba kenn mënul accès bi xawoon na jafe tuuti tuuti baax mais tribunal bi daal loolu la joxee ci verdict bi nga xam ne moo concerné affaire xale yi nga xam ne dañ leen doon jéng fële ci Njaañ Cheikh Oula Gueye ak ñi nga xam ne jot nañ leen doon jàpp ñuy juróom ñu juróom ci ñoom ñuy juróom benn ci ñëpp ñoom ñëpp libre nañu ñaari atu kaso lañ leen daan te ko tëdd avec sursis El léegi nit ñi gannaaw bi verdict bi daanoo lan mooy réaction foofu lay ca tribunal bi. waa jamono ji am na ñu ñëwoon ci salle benn benn mm. ouf de soulagement lañ def waaye nag jamono ji dañuy xaar ñi nga xam ne mooy avocat wu Cheikhouna Gaye ñu génn war a def ab déclaration jëm ci li nga xam ne jot na fee am waaye ñu ci mën a jàpp tamit mooy juge bi balaa moo joxe délibéré bi wax na ne li ñaawlu na ak yi nga xam ne amoon na fii mercredi bi passé mooy le 27 novembre ba ñu jot a toj ay vitres yi nga xam ne moo nekk ci óolu entrée tribunal bi. Mhm. ba mu ne yoon moom ñëpp la fi nekkal amul ko pauvre amul ko ku far fenn wala dara dañuy wax yoon nuñ ko war a waxee te duñ ci xool dara nag te yooyu noonu ajaroon fee am xëy na yoon dina ci dugal loxoom. En français, euh, Abraham Paul Pouy, vous êtes notre correspondant Louga.